fi dajale dafa gàtt waaye dafa gudd am na tàmbali mais amul fu mu yem dañu fi daje ngir sah madame madame la ministre Zahra Iyane am teraanga bu mu defal marché président dénk ko defloo ko liggéey mu defee ko anam bu rafet ba ñun ñii waa marché te quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñun mosuñoo gis teraanga bu jóge ci nguur dugg ci marché te xëy na ñàkkut ni ko président santaane mu defee ko ni ñàkkut dees na ko santaane noonu mais xëy na mësta yëg si bi jaar ci moom président jox ko ko indi na ko ci ñun jotal nañu ko bénéficiaires yi jot nañ ci rafet na joxin wi rafet na ànd na ak yar ak teggin ak sutura kon bu ñu jàppee ne dañ ko war a teelloo njukkal maanaam delloo njukkal gi moo président de la République ak gouvernement bi yëpp ñoo ko bokk waaye nag à travers moom mi nga xam ne moo ñu ko jot li ci anam bu rafet bu ànd ak yar ak teggin dina jaaxal ñenn ci ñi ma xam tey buñ ma gisee ma yor micro taxaw parce que néew na yi ga ma juddoo yaroo fa sax lu luñ may gis ci lu mel nii ma laak ci lu ñuy tuddee naan nangam waaye nag marché laa am marché ma ñor njobootu marché laa développement moo ma ñor kon bu ma gisee ku ci dugal loxoom lu mu jaar dina ma ko jaral pour ma taxaw loolu ñu wone ko ci biir loolu kon délégué yi ñu ngi fi département yi Pikine Tëngéej Géejawaay Kër Massar ñu ngi fi ak dakaar ñenn ci ay marché yu nekk dakaar yu bari ndax Sandaga ngi fi ak marché yu bari Goltapé Colobane Tilène ñu ci bari ñu kon département de Dakar mu ngi fi. auzu billahi mina seytaani raji bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi maa ngi leen nuyu yéen ci seen tur ak ci seen sant di kontaan nag ci nii ngeen def a ah, Saara da gor la lebal na leen waaye yéen ñii fay ngeen ko lebal na leen waaye yéen fay ngeen ko saaraa nag day xale boo xam ne moo ñaanal boppam kenn ñaanalu ko saaraa moo ñaanal boppam kenn ñaanalu la waaw ndax nag dañ ne doomi wàll yi bu dóor wàll yi doonab sëriñ ndax bi nu toogee fii léegi danga dal ne jóg leen nu julli ji man la toogal man man ceddo bi ma la toogal ba gaañi pare ah. may sant nag mboolem délégué marché bu fi taxaw maa ngi lay sant di la gërëm di sant Baye Laye Ndiaye Assane lu njiig njaaga te yaay njaag ndax Assane képp ku fi ñëw jàppale nga ko waaye la wax du ca def dara kon xale bu tuuti bi Sara mii keroo ba mu ñëwee di wax dañ ne fii moromam mi jaar lay jaar mu jóg nag jaar yoonu gor jaar yoonu nit ku baax jaar yoonu nit ku yiw saara li wolof njaay di wax nee na li nga nu defal ku ñu ko defal nga bég nun meru nu boo xoolee fi xam ne kenn meru fi ndax li nga nu defal ku ñu ko defal nga bég man dama daan ne marché bee boo leen ku jiite marché da ngay dem toog ca marché ba amoo xaalis boo leen jox waaye dañ naan jëlal nu ci jàllo bi jàllo bi bu la joxee fukki junni fukki junni yooyu ñeenti téeméer ya nga cay teg delloo ko fukki junneem tey jar na ceeb ak dawlin te góor ñi kat ñëpp ak Matar Kanjee yam bu dee karne ña ngi koy laaje ji ca ca marché ba yaay sun meetar ne naw ma carnet aw ma waaw yaay bëgg a xëy wacc fa ndékki Matar joxe ñetti fiftin yaay dem wuti ñaar dërëm yum ca teg waaw léegi saaraa loolu lépp boo nu ko dindilee nun bi ngi mel ni da noo dugal aljanna yow kenn ñaanalu la nag yaa ñaanal sa bopp waaw yàlla mi nga xamee ne nag mooy wattu jaam saara yal na la yàlla sunu borom wattu nun teg naan la ci loxoy yàlla ak yonent yàlla Muhammad di gërëm nag président ndax président kat ku la bëgg la bëgg na la de waaw kon nag président dañ koo bëgg nag mu jàppal nu sunu doom ji tafal nu ko ci boppam saara yal na la yàlla sagal yal na yàlla yokk sa jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam madame la ministre tey damaa waxoon du ma jël kàddu ndax nag li ma war a wax yëpp nit ñi wax nañ ko te man bu ma gisee ñëpp toppal ko rek ndax géej waaye ñun dañoo say yoon képp ku nekk si 14 mars yi nekk département géejawaay nëbb wuñu làkk wuñu ñun dañ ne ministre mooy suñu lider muy Zahra Iyane Thiam yàlla def na si nag yeneen departement yi xaw ma góor ñi de waaye jigéen ñi moom ñëpp ñëw nañu adhéré nañu jiital nañ la topp sa ginnaaw loo wax loolu la ñu wax foo ñu jëmalee fa la ñu jëm loo ñu tere tamit dañuy bàyyi bu neexee yàlla di ñaan yàlla nag liñ la yéene yal na ko yàlla yeggali di wax tamit na xam naa góor ñi ñun jigéen ñi ñoo leen jiital ndax nag kër goo dem jigéen ñi presque góor ñi mooy suñuy kilifa waaye nag bu dem jotee ñun jigéen ñi ñooy dem ñun nag suñuy doom kon nag lu ñu wax ñoom loolu la ñu wax bu ñu joxee dépense xaaj la ñuy joxe ñu daal di koy doublé bi xaaj bu ñu jox ñaar kon nag suñu waaw rek la ñu mën a wëy waaw deux minutes Assane baax na waaw man nag tey moom sama xol dafa seddu guy sama xol dafa seddu guy ba nga xam ne kàddu gi sax mënoon na ñàkk dama waxoon ne sama maman Ndiolé na wax ndax kooku mooy sama yaay di sama xarit sama yaay ngee toog mais dafa ragal ni day ñëw làqu ca ginnaaw a ginnaaw daal di may booleeg Ndiolé waaye nag comme dañ maa jox cër te fi mu nekk nekkul ma fi waa département Guédiawaye rek dépa région de Dakar yëpp laa fi nekkal yeneen département yi sax seegi fa laa boole sama bopp teg naa waa Guédiawaye fee dénku ko nag ñoom maam Diarra ak ñoom Ndiolé ñoo ngi ñaan yàlla daal li ñu sumb yal nañ ko yàlla yeggali madame la ministre jox nañ la suñuy loxo jox nañ la suñuy jëmm jox nañ la suñu xol di la ñaan yàlla nag lépp loo xam ne bëgg nañ ko rek wala dugal nañ ko suñu biir xol bi yal nañ ko yàlla mottali. asalaamaaleykum waa marché wu région de Dakar. te nga xam ne région bi mën nañ ci jukki département de Kër Massar jukki ci département de Rufisque fa ma bokk jukki ci département de pikin jukki ci Géejawaay jukki ci département de Dakar boo gisee tey ma beral loxo waa Rufisque muy Tëngéej sama yaay Tëngéej la bokk sama genn wàll Tëngéej la bokk kon nag Tëngéej laa bokk maa ngi sant sunu boroom di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñetti yoon maa ngi nuyu kilifa jotaay bi mën nañ ko duppee Baay Laay mën nañ ko tuddee duppee ko Baay Daawda Dia mën nañ ko tuddee Baay Sam bu ñu leen nuyoo ñoom ñett yóbbaale nañ jotaay bi yépp ma dugal ci sam bopp ndax yàlla dafa dogal tey ñoom ñooy kilifa jotaay waaye li ñu war a gën a sant suñu boroom mooy ñu am kilifa yoo xam ne dañu ne suñu ginnaaw ne suñu wet ne suñu kanam di ñu jàppale di ñu ñaanal te bu ñu xewlee ñu ñëw toog ànd ak ñun kon sant nañu gërëm nañ nuyu naa mbooleem délégué de marché yi nga xam ne ñoo ne ci région de Dakar nuy naa mbooleem commerçante ak commerçant yi nga xam ne ñoo ne ci région de Dakar bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn sama xol sedd na sama xol sori na sama xol tooy na beral naa nuyoo nag Assane ak Sali Gueye Assane Mbaye ak sa liggéey beral naa leen nuyoo ndax li nga xam ne yéen ñëpp dangeen ko bokk muy marché yi bi ñu demee ba ne nañ ko liggéey dañu leen dañ ko yëkkati teg ko seeni loxo ne defar leen ñu ànd ceeg ñeneen moo xam délégué yi nekk ci département yépp damay bañ di lim di jaar seen tur yi ñu juum walla ma fàtte te ñoom ñépp bi ñu amee mbébétu sargal ma dañu ñëw fekk ma ci siège ne ma ministre ñun ñoo ñëw bëgg waxtaan ak yow ndax waa marché yi délégué yi ñun ñoo toog 116 marché téeméeri marché fukk ak juróom-benn ñoo toog ne defal nga leen loo xam ne dañ laa bëgg sargal bëgg la sant bëgg la gërëm te bëgg nañu sol suñu dàll fekk ci la ba fi nga dëkk ñu def ko fa loolu nag dafa am lu muy lu ma ci gis man ndax nit dénk nañ ko te damay taxaw foofu sànq wax nañ ko ma sant ci yàlla la ma doon def moomuma ko awma ko yoruma ko dañ ma dénkoon sant ma liggéey liggéey boobu ñu ma dénkoon sant ma ko jox ma lu ma ko defee ki ma ko dénkoon mooy le président Macky bi ma wóoloo jox ma ko ne ma nii laa ko bëggee na nga xool secteur yi nga xam ne dañu vulnérable na nga xool ñi nga xam ne ñoo gën a maanaam soxla ku leen jàppale gën a mën a en tout cas ñu gën a mën a seen loxo gën a mën a jot seen gannaaw moo xam ñi ne ci marché yi la moo xam ñi ne ci yeneen structure la tey marché xew la ci waa marché yi laay wax mu ne ma nanga seet nooy def ak ñoom na nga fexe ca la ñuy yëngatu mu am loo xam ne dinay jóge ci état bi di yegg ci moom ci ñoom ñuy mën di yëngatu loolu bi ma ko waxee laata ma ciy def lenn dañoo dugg ci biir marché yi délégué yi ànd ceeg ñun ma ciy profito di taxaw ci Assane Sylla monsieur le haut bi nga xam ne mi ngi euh, Kër Massar mu ñëw ànd ak équipe bi nga xam ne ñoo doon def liggéey boobu dugg dem ñu seet waaye ba ñu seetee ba pare yéen délégué mais yéen a ñëw toog ñu bokk toogandoor di def liggéey bi kon tey loo leen ma sargal sargal lu ne waroon ngeen sargal seen bopp ndax liggéey bii ñu def bu jaarul woon yoon du ngeen ci mucc de ndax dañ ko àndandoor def kon nag ni ngeen ma sargalee tey man maa ngi leen di delloo njukkal yéen booleem délégué marché di leen sargal ndax gannaaw ba ngeen nekkee ay jàmbar ba pare da ngeen a gore ndax gor yi bari nañ ci réew mi waaye ñi gore bariwuñu dangeen a gore sant naa leen gërëm naa leen te cofeel bi tàmbale ci suñu diggante bëggante bi tàmbale ci suñu diggante ak yéeg nit jox ko ak xam ak yelleefam bi nga xam ne sosu na tàmbale suñu diggante te ñu bari ci yéen jaar fi wax ko dégg naa ko dugg na sama biir xol te duma raf ci ànd ak yéen pour def ko ndax xam naa ne bu ma ko àndeek yéen du ma daan xam nga président bi mu ma dénkee li mu ma dénk ba pare bari na ku ñuy dénk sant ko liggéey mu def ko ca fam ko def war a def bëri na ku ñuy dénk sant ko liggéey jox ko ko te du ci def lam ko lam fa war a def bëri na nag ku ñu sant mu def lañ ko war a def te kenn du ko sant kenn du ko gërëm kon bu ñu de buñ ma dénkee ma dugal ko fa ma ko war a dugal def ci la ma ca war a def ña ko defal xam ko ba sant ma ah yéena yéen a gore te nag may wax ne cant gi man ak président Macky Sall ñoo ko bokk ndax bu dul wonteeg moom lii ñu def tey du am kon sant naa leen ci gërëm naa leen ci li ci des nag mooy dañu dëgmal lu am solo li ñu dëgmal mooy ay élection te élection yooyu ñu dëgmal am na ñu fi wax léegi xam nga dafa bëri lu ñu naan la croissance ne se mange pas maanaam koom bi nga xam ne day am ci réew mi nit ñi duñ ko lekk waaye croissance bu fekkee ne dugaloo ko fi nga ko war a dugal forcément nit ñi duñ ci jot waaye boo jëlee koom liy génn nga dugal ko fi nga ko war a dugal ba dugal ko fu mel ni fii waaye koomu réew mi ñu ngi koy lekk kon loolu ak jàmm ak dal ak am réew moo xam ne bu la neexee nga toog ci mbedd bi tànt wax lala neex pour mu am kenn ku ne ci ñun daf ci am taxawaay ndax dëgg la Assane wax na léegi lu am solo ci wàllu dund bi nee dund bi cher na dund bi metti na am na luñ ci war a def dëgg la état li mu war mooy créer condition yi nga xam ne ñiy dund ci réew mi dinañ nekk ci condition ci anam yu mucc ayib danañu suñu bëggee faju ñu faju suñu bëggee jàng ñu jàng suñu bëggee def leneen ñu def leneen waaye loolu rôlu état la ni état amee rôle noon la ñun askan wi ñu amee rôle te nag lañuy xaar ak liggéey bi ñu bëgg def du jóge ci kaw asamaan wadd fekk si ñu fii te aussi banque say loxo du la ko tax a am kenn ku ne boo bëggee liggéey di dëb-dëbal faw nga jug di dox te ci jug di dox boobu ngeen nekk ndax 4 heures du matin bëri na ñu fiy jóge sama mbokk bambiloor yi duñ ma bàyyi 4 heures du matin ngeen di jug dugg ci oto yi mu ànd ak saako ndugg mi ngeen dem ak moom tasaaroo ci biir marché yi loolu taxawaay boobu dama bëgg ñu ànd ci ànd rekk ngir taxaw boo xam ne dañu koy taxawal suñu réew ndax man de loolu laa gëm te maa ngi ñaan suñu boroom mu dimbale ma man ak ñi ma àndal man ak ñi ma wóolu ñuy wéy saa su ne di taxawal senegal ñuy wéy saa su ne di liggéeyal suñu réew ndax lépp lu ñu fi liggéey sunu bopp lañ ko defal suñu njaboot lañ ko defal taluñu toj ñu sànni te it liggéey doone rekk damay takk ndombo tànk wala du ma takk ndombo tànk wala damay wut leneen liggéey mooy sunu boroom dimbale la ngay ànd ak gor yu baax yoo xam ne ñi ngi gisee ni ngeen gisee fas yéene àndandoor tegu ci benn yoon te loolu ngeen ma wax lool ngeen ma wan kon dégg naa ko dégg naa it leneen loo xam ne danañ ci taxaw xar si suñu tànk tubéy ndax li président tàmbaleeg yéen bi mu ko tàmbalee gis nañ njëriñ te président dafa ne inclusion ne équité territoriale kon forcément li nga xam ne biñ ci tegoo gis nañ ne am na njeexital danañ ci topp gën ko dëgëral gën ko yaatal li ci des nag ak ci wàllu politique man bés bu ma ca waree wax danaa taxaw ndax dana jot ñu wax ci tey du bésu politik tey bésu sargal la kontaan naa sant naa leen gërëm naa leen yàlla na sunu boroom dëgëral leen sàmm leen aar leen ngeen ñibbi ci jàmm ak salaam te nag te nag li ngeen ma defal tey Assane li ngeen ma defal tey bu fekkee ne daal am na lu ma ciy teg xanaa ndaw ràbbin ndaw ràbbin daal laay waaja dóor bu sabar yi jolli nag ndax sino ndaw rabbin bi day dem waaye daal sant naa leen gërëm naa leen beneen yoon incha allah